Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak md énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal leen ak jàmm ci yëglekaay ndaje mi njiitu réew mi doon séq ak taskatu xibaar yi ngir àddu ci téeméeri fan yi nga xam ne rek def na ko ci bopp réew Sénégal ci la yëglekaay yu bëree bëri xëy àddu jëmale ni tey ji réew mi quotidien ne président ba Bassirou Diomaye Faye kay jamono ji nag ma ngay wax ay dëggam moo xam ci wàllu fiscalité la wàllu fonds politique ak digganteem ak Ousmane Sonko bàyyiwu ci dara Sud Quotidien ne ko wàllu gouvernance politique wàllu économie et bu Sénégal ma ngay fësal ab agenda am ñàkk gee fekk nag ay fons politique ci réew Sénégal lu jëm ci wàllu emploi des jeunes wàllum justice lu jëm ci coowal suuf relation ak premier ministre am wàllum fonds politique yi ak lu jëm ci wàllu négociation yi nga xam ne rek war na ko amalaat ci contrat yi nag wàllu politique agricole bras de fer bi nga xam ne rek judd na ci coowal déclaration politique général taxawaay bi mu ci taxawee ngir tànku jàmm ak coow li nga xam ne rek am na ci diggante CEDEAO ak AES yeneen ak yeneen président Bassirou Diomaye Faye àdduna jëmale ci cib ndaje mu mu doon séq ak taskatu xibaar yi niki samedi jii weesu ba ci sax ni muy doxalee ci wàllu gouvernance politique économique ak sociale ci bopp Sénégal loolee lépp yéenekaay bi ne yéy na ci yàbbi lu ne mel nag mi ngi ko amal ginnaaw téeméeri fan yi nga xam ne rek jiite na ko bopp réew Sénégal yéenekaay bi ne moom jiite réew mi ñaawlu na situation bu doy waar bi nga xam ne rek fekk na ko ci bopp réew mi ginnaaw départ président Macky Sall enquête yëglekaay ne waxtaan wu njëkk wi nga xam ne rek amal na ko ak way taskatu xibaar yi ci bopp Sénégal moom Jomaay Fay nag bàyyiwul dara lu jëm ci wàllu fonds supprimer waaye daañu gën a fexee yokku leeraange gi pouvoir yi ñuy lam-laamee ne Ousmane Sonko da koo am di ko doxal njiitu réew mi ne bu ñu ko tënkee ci wàllu constitution moom premier ministre ku faible la lu jëm ci teewaayu armée française fii ci réew Sénégal daañu ko waxtaanee nag négocier waat lu jëm ci wàllu contrat yi njiitu réew mi daal ma ngay tëral nag stratégie yi nga xam ne rek ca la fas yéenee tënku lu jëmit ci wàllu relation bi dox digganteem ak élimaanu jëwriñam moom jomaay leeral na ni nag mi ngi ci keppaaru Ousmane Sonko di doxal les éco yëglekaay àddu presse bi nga xam ne rek moom la njiitu réew mi doon séq ak way taskatu xibaar yi yéene kaay bi ne jomaay ma ngay àddu ci lépp ba noppi di ngembul Ousmane Sonko premier ministre yi fi jot a jaar yépp nag bosam moo ci gën a meilleur te maa ngi koy woo ngir mu daal di xoor fauteuil président bi ndax mën na ko am na dayo bi te bu ca toogee dina doxal ngir lu jëmale réew Sénégal ca kanam Le Soleil yëglekaay ne président jomaay fay kay janoon ak taskatu xibaar yi wax ay dëggam te tiitul rafu la dellu siwaat na ci lu jëm ci wàllu réduction des comptes négociation yi bëgg amalaat ci wàllu contrat yi ak digganteem ak Ousmane Sonko mission bi nga xam ne rek de la république wax na lépp Le Quotidien yëglekaay ne ko téeméeri fan képp la ñu defagum ci réew Sénégal Bassirou Diomaye Faye ma ngay jàll moom njiitu réew mi ma ngay xam ne ni nag liggéeyam jamono ji mooy Ousmane Sonko doon njiitu réew L'Observateur des ba tey ci waxtaan woowee nga xam ne rek moom njiitu réew mi doon na ko amal ginnaaw téeméeri fan yi mu def ci bopp réew Sénégal yéenekaay bi dellu soir ci temps fort yi nga xam ne rek doon na ko jonoo ak way taskatu xibaar yi ñi nga xam ne rek seen xam-xam dafa màcc ci wàllu communication ñoom ña ngay analyser di amal ab décryptage ñeel nag politique bi nga xam ne rek moom la président Bassirou Diomaye fay di amal succès yi nga xam ne rek moom lañ ca gis waaye lajju gi nga xam ne itam nag nemmeeku nañ ko ci kàddu yi mu yëkkati ci biir yëglekaay bi di libération moom président Bassirou Diomaye Faye nag ma ngay xam ne ni bu doy waar moom la ñu fekk ci bopp réew Sénégal bi ñu falee ak léegi nag dafa fekk ne rek mënuñoo wax lépp ndax ay secret d'état dafa am waaye nag nañu bàyyi mu sedd ndax li yàlla xam doy na yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye ma ngay wili Walf Quotidien dellu siwaat ci boobee face à face mu doon amal ak way taskatu xibaar yi yéene kaay bi ne keneen koo xam ne rek ma ngi koy wili pande moom Bassirou Diomaye Faye moo di Bougane Gueye Dany moom moomee nag démb la gontoog janoo way taskatu xibaar yi waaye nag lépp lu Bassirou Diomaye Faye tabaxoon ca palais de la République nag Bougane Gueye tojaat na léegi moom gay Gueye yi ma ngay xam ne ne acteur yi nekkoon ci système bi rek tey jii ñoo nekk ci bopp pouvoir bi tribune yëglekaay xëy ak janoo bi nga xam ne rek doon na ko janoog way taskatu xibaar yi moom Bougane Gueye Dany ma ngay fësal mbooti président Bassirou Diomaye Faye moom nag ma ngay xam ne ne président Diomaye Faye nag ay kàddu yu contradictoire lay yëkkati Bougane Gueye Dany di xam ne ne président de la république nag dafa xam ne ne képp ku ñuy topp ci biir réew mi rek daañu teg ay preuve moom nag ma ngay laaj accusation yi nga xam ne na lu jëmit ci dossier bu 94 milliards yu Mamour Diallo yeeg jëndum arme yi nag loolee koo leeral ci ab boo xam ne rek amal na ko ma ngay xam ne ni daal moom Bassirou Diomaye Faye ab dicté préparé moom la doon amal APR jamono ji nag ma ngay waajal ab riposte ndax xam le nañu ne nag ñaar fukk ak ñaar ci téeméer boo jël ci budget présidence bi rek moom la ñu consommé kon ana li ci des nag fan la ko dugal loolee lépp yër leen boobee yëglekaay évidence yëglekaay ne téeméeri fan yi nga xam ne rek moom la ñu def ci bopp réew Sénégal Bougane Gueye Dany ma ngay vaar discours bu Diomaye Faye 24 heures ne lu jëm ci wàllu cohabitation bi ak défi yi nga xam ne rek moo leen di xaar ci élection législative yi loolee lépp Bougane Gueye Dany dellu suwaat na ci ma ngay sàkku nag ginnaaw bi mu jàppee ne nag ay incompétent ñoo jiite bopp réew Sénégal Abdou Mbaw di ko feelu ci biir yëglekaay bi ne ñun daal li ñu gis rek ci discours bu Diomaye Faye bi nag dafa wane wàllu tàggat yi ndax am na ndam lu rëy ci kaw Angleterre ba gàddu trophée ba beneen final bu ñu doon amal mu di coupe du Sénégal yéenekaay bi ne waa Mbour Petite Côte jël nañu ndam li ci kaw waa Louga ba gàddu